asalaamaaleykum sunu mbokku internautes yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal leen dalalaat bu baax ci seen chaîne bu mag bii di 221 people tey nag ñu ngi fi ànd ak yéen dalalati beneen ndaanaan ndaanaan loo xamante ne nii defe naa ni xàmmee ngeen ko bu baax a baax a baax xëy na kanam gi nag gëj naa génn lool lool lool lool waaye képp koo xamante ne yàgg naa suivre chaîne bu mag bii di 221 people rek bu jàkkaarloo ak jëmm ji dina ko xàmmee bu baax a baax a baax Cheikh Abdoulaye Cissé tey de daa mel ni yow lañ seet si. xanaa ma bàyyi la nga nuyoog mbokk téléspectateur yow pare nag bisimilah aouzu billahi min aseytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw bañ sante yàlla julli si Yonent bi sallallahu alayhi ñu ngi nuyu mbokk internet yi di nuyu mboolem àddina bi yëpp di nuyu suñuy fans yi ak suñuy soppe yi si àddina bi yëpp di wax na gëj a génn bi tamit dara waralu ko rek lu dul nekk si ay xarakaat di tukki ak nekk ci yëngatu yëngatu yu bëree bari bari bari comme ñun bu doon wàllu ñaan bu ñu neexee ñu ne international lañ moo tax daanaka léegoo léegi dañuy xaw a am jafe-jafe pour mën a jàkkaarlook nit ñi si lu bëri waaye lu mënul ñàkk la parce que jamono ju nekk rek soppe yi ak am di jàmm yi ñu ngi koy sàkku si ñun kon bisimilah. jërë ngeen jëf kon mu ngi noonu comme que daanaka téléspectateur yi dañ laa namoon te yow itam da leen a namoon kon defe naa ni jaadu nañu amal waxtaan boo xamante ne waxtaan bu neex lay doon bu mucc ayib boo xamante ne nii képp ku ci nekk dina ci mën a gis boppam ba tax na xam naa ne dinañ waxtaan ci ñaari poñ bi ci jiitu dinañ waxtaan ci wàllum ñaan yàlla ci ngay yëngu ñaareel poñ bi dinañ ñëw ci li nga xamante ne moom mooy actualité dëkk bi wante damay njëkkee fi nga xamante ne rek moom mooy wàllum ñaan yàlla ndax képp koo xamante ne ni xam na la rek à travers média yi ci wàllum ñaan yàlla la la ñaan yàlla nag kenn mënu koo wax te doo wax li nga xamante ne moom mooy wàllum seet lan nga ñu mën a wax ci wàllum seet. waa alhamdulilah seet dafa bëri ay façon am na ñoo xamante ne dañuy seete si kurus am na ñoo xam dañuy seetee si petaw am na ñoo xamante ne dañuy seetee si ndox am na ñuy seetee si suuf yooyu yëpp ku si mel ni ñun nag alhamdulilah yàlla dimbal nañu si peeg nañ si lu toll si ñaar fukk ak benn si ay mbir yoo xamante ne ni benn bu si nekk rek nu ngay seetee la. loolu moom yàlla dimbalee ñu ko moo tax amuñ jafe-jafe si seetal nit si benn si benn si benn maanaam euh, côté bu munta bu munta doon rek mën nañ see jëflanteeg moom parce que seet moom la ñuy wax am na tamit ñuy wax istixaara léegi léegoo léegi nit wala dama bëgg nga defal ma listixaara listixaar tamit foofu dinaa fa jaare ubbi benn bunt bu ndaw rek boo xamante ne nit ku nekk la may wax rek mën nga ko defal sa bopp si naka mooy boo bëggee dugg si mbir wala nga bëgg defal mbir comme mag ñi dañ wax ne ñaara ngi nii balaa mu si dugg da koy seet wala wala ba ñett sax wala mun nañ ne lépp su ma waxee ne ñaar dafa am lu ma bëggal lii moo tax ma ma tudd ñaari mii lu mel ni soxna ak oto wala lu mel ni kër jullit bu nekk war nga ko mën a defal sa bopp mooy boo demee ba war a tëdd parce que guddi gi boroom xam-xam bi dañ koy woo si ñetti xaaj dafa am benn xaaj bi dafay commencer lu mel ni vingt 22 heures jàpp une matin beneen xaaj bi tamit mën nañ ko xaaj lu mel ni une heure jëm 4 heures ñetteelu xaaj bi mun nañ ko xaajee gannaaw bu ñuy maanaam waxtu julli fajar ba jëm si fajar gi si diggante yoon dafa am benn façon bu nekk ba def listixaara bu fekkente ne nee nañ lu jëm vingt deux heures jàpp une heure de matin côté boobu ñaareel da ngay gis ne si la nit ñi di gën a bëri lu ñuy gént lu mel ni su ma waxee ba léegi maa ngi seet mais dama bëgg a leeral mbiram gént parce que borom xam-xam yëpp d'accord nañ ne maanaam gént xaaj la si mbubu watu parce que nit yàlla dina bëgg xamal ni dara sax mu jaarale ko si gént mu gént moo tax des foo nga gis ñu naan la diw dafa am gént bu fekkente ne guddi gi la jëm euh, une heure matin foofu ñaareel lu dafay nit ñi di gën a gént lu mu gën a bëri da ngay gis ne ay seytaane lay doon lu ñuy waxee seytaan nag mooy lu mel ni gént dee wala lu mel ni gént di xeex lu mel ni gént def nangam ak nangam lu si gën a bëri bu ko defee lu mel ni une heure matin jàpp quatre heures ba cinq heures ak lu mel ni 5 heures du matin gannaaw bu ñu julee fajar foofu tëdd gannaaw bu ñu julee fajar lu ma bëgg a wax nag mooy lii gannaaw bu ñu julee fajar ba pare ba tëdd foofu lu si gën a bëri si lu ñu borom xam-xam lu ñuy def foofu mooy listixaara la istixaara nag da ngay jàpp ba set julli ñaar rakk am na lu bëree bëri lu ñu mën a jàng comme ñun ay borom xam lañ te xam-xam bu ñu yor mooy siru te siru lu ñuy wax siru mooy lu nëbb moo tax duñ toog sax di bëgg a fësal di weer mbóot nga jàng jullit bu nekk mën nga ko mën a defal bopp sa bopp nga jàng laaya boo xam te mu sell nga ñaan yàlla tànnloo ko si yow li nga bëgg a def incha allah boo tëddee mën na la wan lu leer nañ si lool nga bëgg a xam foo côté boobu mu wàll istixaara la mais seet tamit wax dëgg yàlla am nañ ci xam-xam bu yaatu ba buñ ko doon développé sax fii amaan na duñ ci jógee ko waaw jërëjëf mu ngi noonu di ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Abdoulaye Cissé mais Cheikh Abdoulaye léegi bu ñu jógee ci wàllum seet na ba nga xamante ne nit ki gis nga ko gis nga ay mbiram ba pare xool li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe yeeg li nga xamante ne moom moo ko gàllankoor léegi na dañuy ñëw ci wàllum ubbeeku ndax nit ki boo ko kii defe naa nat faj soxlaam tamit war na doon loo xamante ne ni moo ci war a topp. waaw parce que seet moom moo lay wan lu baree bari moo lay wan ne nga xam ne kii dafa tëju wala lu ma gën a ràññeeku ko si jamono ji wala lu may gën a def mooy damay seet nit damay lu may nit ki mooy si biddiwam biddiw bi si laay xam ne biddiw bi dafa làqatu wala biddiw bi fenk na wala biddiw bi mu ngi si waxtam wala biddiw bi mu ngi si ëram loolu yëpp xam lu ñuy wax xam-xamu lasraar moo si mën a dimbali nit te bu ñuy wax xam-xamu lasraar nag lu ñuy wax xam moo si mën a dimbali nit te bu ñuy wax xam-xamu lasraar ñu mën a toog ne diw mi seexu lasraar la day fekk mu peeg lu toll si ñeent xam-xam mi xam-xamu hadat xam-xamu xawaatim ak xam-xamu lu ñuy wax seet yii yëpp boo ko waxee rek mën nañoo wax nag diw mi seexu lasraar la parce que day fekk xam nga ñun nag bu ñuy seet gannaaw bu ñu jëlee sa tur wala sa turu ndey dañuy jël dañuy dem xool sa biddiw bi xool yow ban biddiw nga parce que nit ku nekk rek yaa ngi si biddiw yi biddiw yi juróom la mën nañ ko tudd benn par benn nit ku nekk rek yaa ngi si si juróom yaa ngi si benn bi bu ñu xamee sa biddiw xam biddiw bi lu muy laaj parce que biddiw bi dafay dox ba nga xamante ne ni même at mi sax bi jublu si mii at mu bees mi sax da ngay gis ne am na lu si doomu aadama war a def moo xam muy wàllu sarax moo xam muy wàllu ñaan moo xam lu mu mënta doon loolu yëpp seet moo ñu ko mën a leeralal moo tax bu ñu seetalee nit ki pour ñu dimbale ko dafay yomb dafay yomb su ñun trop trop trop moom la olof Njaay di wax rek lu waaye mën rek du métti alhamdulilah ngëneelu yàlla la yàlla jël na ngëneelam def ko su ñun duñ def lu dul sante ko ko zalik fadlillahi yuti man yasa day jël ngëneelam jox ko ku ko neex yàlla jël na ngëneelam def ko su ñun moo tax lu bëree bëri bëri su ñun mi moo xam mi nit ku tëju wala nit ko bëgg ubbeeku wala dara jafewul su ñun parce que lu ñu mën la xam ko jàng ko alhamdulilahi rabbil alamin mais léegi bu nit ki xësee ba ubbeekoo pare nag wàllum kaaraange gi. waaw moom la ñuy wax parce que kaaraange dafay doon loo xam ne dafa war a ànd ak doomu aadama bi foofu sax dinaa am loo xam ne dinaa ko fi wax lu mel ni mun naa ne sax du révélation wala du dara mais damay wax rek pour laaxee biir parce que nasiha la nasiha bi mooy ne dama bëgg képp koo xamante ne parce que at mi ñu jublu si dafa am at mi nu mu taxawoo. mi yenent yàlla yanqub at 2024. non non parce que ñun suñuy wax si at rek mooy atu tamxarit moo tax ñuy wax. parce que ñu ngi si at mi nii dugg si ñun suñu la ñuy lijjantee xam lan la si nit war a def xam lan la si nit war a taxawoo. dafa am ay sarax moo tax ji nga dégg ñu bëri si ñu nga xamante ne ay nit yu am tur lañ dina bëri ñu si am jafe-jafe waaw. suñu waxee jafe-jafe nag du càgg ne dañuy wax ne dañuy dee déedéet almawtu ala yadillah dee mu ngi ci loxo yàlla loolu que moom doomu aadama bi tuuti na pour pour rox ko wala donte man su ma xamoon su ma ko xamoon sax am naa gàcce toog si télé wala si écran di ko wax mais su ma ko waxee parce que da ngeen ko gis loolu lu may wax ni du ay dara dañ ci yegg léegi nag pour ñu yàlla def bu jafe-jafe bi wala gàllankoor bu ñëwee mu oyof wala mu bañ a yegg si képp koo xamante ne yàlla mën loon na la moo xam nga nekk nit ku siw moo xam nga nekk journaliste wala nga nekk animateur wala nga nekk animatrice wala nga nekk loo mënta doon wala nga nekk tiktokeur wala youtubeur man lu ma lay conseil en tant que frère ak en tant mbokk ak mbokkam demal nga wuti kaaraange demal nga wuti kaaraange jafe-jafe yi nag dina si bëri lu mel ni ay xeetu arm dina di nga gis ay ndaw yu rayante jamante paaka man maa la ko wax di nga ko gis di nga gis ay ndaw yoo xam dinañ def soog seen deret tuuru dina bari ku si bëgg mucc demal nga uti kaaraange. mais Cheikh li ngay wax ni garaaw na waaw du du du du loo xamante ne ni parce que ndogalub yàlla la. te at moo taxawee noonu. léegi nag gannaaw bu ñu waxee safaan yi ba pare wala du safaan sax gannaaw bu ñu waxee lii ba pare dañuy wax képp koo xamante ne bëgg nga si mucc ak foo mënta dem demal nga uti kaaraange ku la mën a defaral kaaraange gu baax demal nga uti ko nga def ko parce que su ma sañoon man du ma xëy benn yoon di dégg musiba wala may dégg ne diw def na jafe-jafe wala def na nangam te lii may wax nag na si ñëpp bàyyi xel na si ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp bàyyi xel wallaay laazim dina am barkaaraange dina tàng lool si ndaw ñi rawatina nag ñu am tur maanaam ñi gën a siiw daal ñu am tur xam nga am na ñoo xamante ne sax siiw buñ siiw ñoom ñoo koy forcer seen bopp moo tax ma ne rawatina nag ñu am tur ñu nga xamante fexe nañ ba nit ñi xam nañ ñu xam ne fexe nañ ba ràññeeku si kanamu nit ñi. jërëjëf léegi nag dama bëgg nga ñëwal ma ci li nga xamante ne ni moom mooy wàllum nopp sëriñ si nag bari na ñoo xamante ne ni loo wax rek ñu ne la ci ñaari fan laa koy def ci ñaari waxtu ci ñetti waxtu yow nag sëñ Ablaye. waaw loolu dañoo jàng si alxuraan yàlla si boppam rek moo mën a wax ne lépp rek yàlla def na ko ci ay def naa lii si juróom-ñaari fan def naa lii bind naa asamaan ak suuf si nangam bind naa lii si nangam loolu yëpp ay chiffres la waaye man boo gisee man maay sëriñ bu gën a toyal tayal si wàllu nopp nopp du du mus maanaam loo xamante ne man damay am gàcce sax di ko tiituroo xam nga lu tax parce que ñun ba ñuy nekk xale di am fukki at fukki at ak juróom lañ ko doon fooyee waaw parce que képp koo gis bu dem si daara wala miy soog a commencé di jàng xam loolu ngay njëkk a xam ba ngay gis génération bu nga bokk ak sax ñu nekk ay xale des fois dañuy ñëw di la jox ay tour naa la noobal ma mooy bu ñuy commencé dugganteeg si wàllu jigéen ak yooyu nga koy def di ko fooyee mais lépp loo xamante nit fooyee nga ko ci sa ndaw da ngay dem ba xam ne lii du lu nit wara a tiitaroo kenn dàquma fi nopp mais du lu may sawar di def wala képp koo xam ne woo nga ma pour sant ma nopp dafay fekk tamit man mu doon loo xamante ne nii dinaa xam ne yow est-ce que ku ngay nopp danga koy nopp pour jël alalam wala da nga koy tasxiir pour not ko wala da nga koy def loo xamante ne du ànd ak nafsu bakkanam looloo tax ma ragal ko parce que jamono ju nekk ñun dañuy nekk ci diggante yaakaar ak ragal parce que ñun dañ loolu lañu jàng ci tawxid fi jaam bi war a nekkee mais que bàkkaar gënul rëy si àddina nit ki nga jël ñu indil la turu jàmbur rek nga jël ko jox ko sëriñ mu nootal la ko te fekk yow amoo benn maanaam amoo benn xalaat bu baax si ci nit ki nga xamante ne jublu na la soit yaa ngi fexe noo ko trompé wala yaa ngi fexe nu ngay jëlee alalam lépp lu ma nar def man mu doon safaana dama koy natt sama bopp wala ma natt ko si kii moo tax nopp du lu may sawar du lu lu may sax lu may bëgg di def nit su ma ko santee damay xool ba xam yow lu lu tax nga nar ko def sa xam sa soxna nga koy def nit jëkkër tamit foofu dinaa si wax beneen affaire jëkkër nopp soxnaam dara nekku si loolu baax na yaay wala papa nopp doomam pour mu déggal ko loolu dara nekku si baax na kenn waru ko bañ waaye kantaan nag nit ñii rek mu leer na yow boo ko noobee ba mu nangul la farata jubluwoo ko si moom wala da koy jël pour jël alalam nee na ñu dem uti kaaraange balaa ñu leen di caaxaane ah moo tax nopp moom du sax lu may sawar. maanaam du ñëpp nga koy defal faaw nga xool ni. du ñëpp laa koy defaral nit mun na ma ko san topp si man di daw parce que xam nañ ne mën naa ko du may caaxaane sax nopp moom damay dellu si sama maam ci pël ga rek hmm. ah, waaw waaw. su ma jëlee delloo si pël ga dama koy def vite fait. du yàgg dara waaye nag du lu may sawar di def te du nekk tamit ku ne laa koy defaral man sëtë ma ba joxu balaa piir ñoore gi laa dëkk kon am naa wàll si pël gi <laughs> jërëjëf sëñ Abdoulaye léegi bu ñu jógee ci wàllum noob nag dañuy ñëw dugg ci ci li nga xamante ne nii moom mooy jàngoro yi bu ñuy wax jàngoro yi nag bokk na ci li nga xamante ne moo ci gën a siiw jëm ci wàllum góor ñi te sonal leen loolu mu di wàllum impuissance wàllum tële ak néew kàttan ndax sëñ Abdoulaye mu ngi yëngu ci loolu. loolu tamit balaa ma ci yegg damay wax ne dafa am lu ma bëggoon a wax ba may dugg sànq si wàllu kaaraange laa ko fàtte gis nga téere bi lii ab téere la. ab téere la gis nga nañ ko liggéeyee nii téere poos la te téere góor la. man de kalpe laa ko. waa téere kalpe sax lañ koy wax gis nga su ma ko jëlee nii sama poos bi laa koy dugal. mun nga am ak boo ko defee sa poos kenn dootul xam lu nga yor képp ku ko am mënoo am lu gën a kawe li si wàllu kaaraange góor gu ko yor di nga mucc loo uti di nga ko am te kenn du la gàllankoor bu ñu waxee nag ne fetal dina génn jaar si dina génn paaka dina génn lu munta doon yow mun nga see mucc gis nga ndaw ñuy jaar si yoonu Nicaragua bi dem Amérique ñu mu ko defaral kenn xamul nu mu toll te amul kenn koo xam ne jël nga ko def ko sa poos ba keroog nga yéegee si yoon bi nga ne ma am naa jafe-jafe wala am naa gàllankoor ba ñu nekk foofu sax duñu am jafe-jafe moo tax maa ngi ciy digal képp fu Sénégal ne laajuma si nag dërëm utuma si dara képp koo xamante ne yàlla dogal na nga gis seetaan lii contacté ma mun nga koo am si lu yomb nga jël ko nga def ko sa poste nga xam ne jubluwuma si dara lu dul ñëpp mucc ñëpp am kaaraange. rawatina kilifa yi. maanaam da nga koy promotion daal. waaw rawatina kilifa yi képp ku ko jël ba def ko si sa poste du lépp sax laay mën a leeral ci écran waaye ku jël rek li mooy mos xam lii daal lenn lay bañ sëñ bi xam nga mooy lan daw daw wane ginnaaw lii ku ko jël doo wane ginnaaw waroo daw mukk ak lu mënta jàkkaara yow waroo daw su alf rijaar jàkkaarla yow junney góor yow nga nekk yow kese sa kaaraange gi mën naa fexe ba nga mucc si ñoom ak pexe buñ mënta yor loolu mooy xam-xam man lii lay ndamoo nan laay def ba nit ñi mucc nan laay def ba nit ñi am ubbeekaay nan laay def ba nit ñi seen wa bërëbu seen wàllu liggéeykaay ñu am si réussir moo ma gënal téeméeri ju neewoon ay noob ak yeneen ak yeneen. bu dee nag ñu nga xamante ne comme euh, dañoo bëgg mucc si at mi nu mu taxawoo ba léegi si laay wax dont yéex naa génn bëggoon naa gën a teel a génn mais si diggante bi dafa am si ay yitte yu bëri yu ma nekkoon. bu fekkente ne danga nekk ndaw wala nga yor sa doom wala ku mënta doon. mu ko dalee si am ku am zarana jëm 5 ba jàpp fukki at dafa am lu mu war a génnee si at bi comme sarax bu fekkee koo xam ne dafa am fukki jàpp fukki at juróom dafa lu mu war a génnee comme sarax bu fekkee koo xam dafa am lu ëpp fukki at juróom jàpp fanweeri at jëm téeméeri at dafa am lu mu a génnee comme sarax bu fekkee ku nga xamante ne dafay jàng wala mu tawat wala mu am jafe-jafe bëgg mu tàqali koog moom dafa am loo xam ne bu ko defee rek yàlla dina ko dimbali bu fekkente ne koo xam dafay ut kayit moo xam lépp luy jëm si wàllu kayit wala poste bi muy xëccoo wala lu mu mënta doon su ma ne poste nag yeggaguma si ñuy xëccoo lu mel ni nguur mooy koo xam da danga bëgg poste liggéeykaay wala dara wala kayit wala ñu sa entreprise wala dara dafa am loo war a génnee comme sarax bu fekkente ne koo xam dafay xëccoo nguur moo xam mu nekk si wàllu nguur moo xam mu nekk ak lu mënta doon moo xam xataa président de la république sax dafa am loo war a génnee comme sarax boo ko defee kenn du la ëppale cër si gouvernement bi ak koo mënta doon nag ak loo dellu dellu gannaaw donte am nga si tur wala donte rek am nga si tuuti rek loo mën a def rek boo génnee sarax bi kenn du la ëppale cër kenn du la ëppale post su gouvernement ak bu mu mënta doon nag loolu lépp si at mi lay taxawoo bu at mi jeexee nag dafay nga gis xam-xam pour xam lu tax la xam-xam dafa neex gis nga bu at mi jeexee yow da ngay xamaat nit bu ñëwee si yow du jar nga koy seet man damay jàkkaarloog nit xam lu mu war a def sarax te duma ma utiliser kayit du ma utiliser bëgg du ma utiliser dara lu ñu war a seetee même su may tukki dem bitim réew ñu neen kayit du dugg boo demee naar dañ koy téye man big rek su ma ko amee lu ma bëgg a def mën naa ko def big ak fooy rek laay jël big ak fooy rek laay jël nga jox ma sa tur ma génnee sa tur génnee ko xam naa xaatim xawaatim xam naa mu salas xam naa mu rabax ba alfu buyut xam naa nit ku soxlaam bu dee ubbeekaay nga bëgg am na aaya yoo xam si ubbeekaay lay dox ma jël aaya bi bind sa soxla génnee ko bind ko si xawaatim jox la sa aajo faju wallaay xam-xam moo neex si ko ko mën waaw <laughs> ko yi ñuy seetaan defe naa ni yéen a ngi jàkkaarlook moom noonu mu di Cheikh Abdoulaye Cissé képp koo xamante ne soxla na ko rek wala nga soxla ay service am xam nga fi ngay jaar numéro yi mu ngi noonu di affiché wu ci suufu ecran bi boo kiiwee rek nga boo ko ci woowee rek incha allah mën nga koo jot mais Cheikh Abdoulaye li ma doon laajte léegi ba tey tontoo gooma si de wàllum ngóor ak yooyu waaw alhamdulilah parce que loolu tamit yàlla may nañu si boo demee si émission yu bëri ak publicité yu bëri yu ñu def si télé bi mu ngi si am nañ garabu ngóor a buñ tuddee taxaw dañ la koy jox nga naan ko léegi léegi nga am résultat. taxaw temb moo xam góor gu tële parce que feebaru ngóor yi fukki la ak fukki point la ak juróom mun nañ kaa lim benn par benn waaye day du xaj ci émission bi xam naa suñ beneen programme parce que si góor ñi dafa am ñoo xamante ne nii seen awra dafa tuuti am ñoo xamante ne nii seen awra léegoo léegi mu gàtt léegoo léegi mu gudd am ñoo xamante ne nii seen awra man nu mu war a mel mel na ko mais pour ñu yegg seen soxna dañu am jafe-jafe yooyu yëpp ay xeetu ngóor la ngóor nag bépp koo gis mu am feebaru ngóor bu du rab wala wala bu dul rab wala mu doon lu ko loxo def dafa am cosaanu feebar. cosaanu feebar lu bëri nag ci lu koy waral dafay doon siti wala hémorroïde wala diabétique moo tax garab bu lay jox dafay doon garab boo xam dafay doon garabu général dalay dimbale si wàllu kàttanu sëy waaw comme garabu ngóor yi dafa bari bëgguñ seex sax nekk di gën a xóot waaye képp ku ko ñam wala képp ku ko mos rek di xam ne lii maanaam roy di ñu doog piir waaw te si dëkk yu bari bari lañ ko si dëkk yi gën a sori lañ dem dajale fa ay xam-xam ba xam na lii dina baax si ndimbal njaboot la ñu soog a ñëw mbir mun a jàkkaaroog jaamu yàlla yi dimbalandi seeg ñoom. kon boo booy faj nit ba nga xamante ne nii gis nga ni maanaam lii tee lii dafa jóge ci li nga xamante ne moom mooy hémorroïde wala mu jóge ci ay cité yooyu da koy traité waale wala. dañ lay dañ lay joxaale garabu hémorroïde wala garabu cité boo gisee fajkatu ngóora yëpp échec mooy dañuy faj ngóora te du ñuy faj ndayu feebar yi. ngóor ndeyu feebar bi ndo parce que ngóor képp koo am rek dafa am lu ko waral maam dafa am lu nekk si ron ngóor bi moo moo waral ngóor gi. mun ngaa faj ngóor téeméer at du wér mais mun ngaa faj sax siti kase sax sa ngóor wér wala nga dem faj émoride kese sa ngóor daal di wér waaw moo tax loolu day jaadu ñun dinañ ko xam waaw. jërëjëf léegi fi may ñëw rek xaw fa daaneele rek mooy ci li nga xamante ne ni moom la ñuy wax wàllum rab rab bëgg naa nga ñëwal ma si tuuti nag xaw ma ndax bokk nga ci ñi nga xamante ne ni dañ kii yëngoog déet wala. mbir moom moom <laughs> nañ bàyyi rek mu seen waaw mbiram rab moom duñ ci waaw duñ ci duñ ci. jërëjëf léegi nag damay ñu bëgg a ñëw ci fi nga xamante ne ni moom mooy ci ñaareelu pàcc bi ñu ñëw ci wàllum actualité wàllum actualité defe naa ni yaa ngi koy suivre. gis nga réew mi fi mu toll nii yëngu na gaa gëj ngaa génn waaye tamit taxul nga umpale li nga xamante ne ni moo xew ci réew mi wàllum politique bi situation politique gu Sénégal gis nga ko kii nga xamante ne ni moom mooy Macky Sall jël na ki nga xamante ni moom mooy Amadou Ba jiital ko yaa ngi reede sëñ bi lu xew. sa <laughs> Tidiane Chérif radiyallahu taala an gis nga réew boo fa nekkee di jaamu yàlla. amul lenn lenn lu nga xam dina xew si réew mi te yàlla du la ko xamal barke alxuraan. billaahi wallaahi wan nañ ma ñaari nit ñoo xam ne président Sénégal du mujj si ñoom. billaahi wallaahi wataalaahi barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke alquraan karim mën nañoo xam tur yi kan ak am naa gàcce toog si écran di ko wax. Ah, lu tax waaw parce que euh, yàlla dafa wax si alquran ragal leen yàlla yàlla xamal leen boo ragalee yàlla rek yàlla di nga la xamal waaye yàlla du xamal moo ko kee ku nga xam dafay wul dafay wuññu mbóot. xam naa sax bañ na ma diw mi sarax bii bu ko defee kenn mënu kaa tontu président de la république billaahi wallaahi wa taalaahi barke alxuraan xam naa ko nee nañ ma diw mii sarax bii bu ko defee kenn mënu kaa doon président de la république bu Sénégal waaye ma lu ma intéressé mooy incha allah at bii di euh, du ma ne at sax mais jamono ngi ñëw si kanam tuuti Sénégal dina naat lool. wallaahi la dina naat lool. gis nga fépp fu am nit ñu baax fépp fu dëkk fépp dëkk boo xam dafa am ay nit yu baax gis nga nit yooyu bu buñ dee bañ suul lañ ba seen jëmm commencé di am téeméeri ak si biir suuf jëmm yooyu la yàlla di di tajjaliyaat di ko di ko def mu nekk ay koom-koom ak ay teraanga pour ñu nga xamante ne ñooy seen sët ak seen doom mun ko jëriñoo bépp réew buñ suul ay waliw yàlla suuf soo dina am pétrole dina am gaz lépp lu réew di jëriñoo Sénégal am na ko. billaahi wallaahi wa taalaahi lépp nag loo xam ne réew dina ko jëriñoo lu may ñaan yàlla kay bii ñëw nañ yàlla booleeg président bu gën ñun boole ñoo ko ay njiit yu gën suñun yoo xamante ne ni dinañ ñu mën a jëlaat loolu war ko si askan bi parce que loolu la askan bi soxla te am naa yaakaar dina am waaw. mais mais kan nga gis mu doon président Sénégal. ku gën suñun te lii ma wax tamit xam day ñëw bientôt incha allah rabbi yàlla yàlla mu xam nga lu baax dina war a ñëw si ab askan ab askan booloo def lu bon yàlla jël lu baax la essence leen ko mu doon buggal si ñoom safaan tamit dina war a ñëw si ab askan am ñenn si ñoom ñiy jaamu yàlla def ay sarax def tuuti rek si wàllu sacrifice yàlla jël safaan boobu soppali ko def ko mu nekk lu baax ñeexal leen mais Sénégal ku ne xam na ne si kanam la si lu si kanam mooy dàq lu si lu nga xamante ne romb nañ ko te incha allah rabbi dina yegsi léegi situation Ousmane Sonko lan nga ñu ci mën a wax. Euh, jaamu yàlla bu nekk si ay xat-xat ñu koy ñaanal yàlla yàlla génnee ko xam nga ñun amuñ droit par parloo parce que foo toll boo xëyee léegi balaa sama téléphone baa ngi kàll kàllee léegi di nga am nit bu ne dina la woo moo xam mu nekk si pouvoir moo xam mu nekk si opposition te kenn ku nekk njëriñ lay ut si yow moo tax déggoo léegi damay xaw a am tuuti xeebaange si nit bu toog. nit ñi di la déglu nga am noo war a taxawee yow ngay fësal sa ab far donte nag ku nekk am nga foo far ku nekk am nga foo far waaye nag day gàccewu torop nga toog di ko fësal léegoon léeg-léeg mën nañoo rëccali sax ba def ko waaye du lu ñuy gënal moo tax jamono yi ñu toll daal su ma sañoon ma bañ a waxee noo xam nit day déggal di xam ne kii am na fu far wala am na ku muy jàppale déedéet parce que ku nekk la ñuy recevoir ku nekk la ñuy gis fu nekk nag la ñuy dajeek ñoom moo xam mi député moo xam mi ministre moo xam mi kaza moo xam mi ku munta doon nit bu nekk sama bët bi jàkkaaral na ak yow kon su may wax rek dama dama bëgg di wax sax pour nit ñi di xam ne kii am na fu mu far wala am na ko l'essentiel kenn ku ci nekk jàmm jàmm jàmm lañ bëgg nga am ko te yàlla la ko yàlla may Ousmane Sonko si ay xat-xat la nekk xat-xat yu mu nekk yàlla yàlla tegg ko nu mu gën a gaawee barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te kaso dinaa nettali tuuti taarax si histoire si jamono yonent yàlla Yuusufa am na ko jugee koo si pale bi dem si kaso am na ko jugee koo si kaso gi dem si pale bi kon nga xool jamono ju nekk rek sijjini ak euh, lu ñuy wax maanaam pale ak lu ñuy wax prison lu ñuy wax pale ak lu ñuy wax prison ñoom ñaari jamono ji nekk rek si seen maanaam seen biddiw yi dafa nii lañuy def nii dañuy wër dangay gis biddiw pale bi day wër biddiw prison bi di daw topp ci kawam léegoo léeg benn bi jot ko léegoo beneen bi xaw a xaw a dem mooy loolu yëpp ay xeetu xam la moo tax nit dina nekk ci pale jugee ko dem prison nit dina nekk ci prison jugee fa dem pale mais loolu yëpp dal ci kaw suñ ñun Sénégal yàlla doon ngërmaane ak ak ak ak ak lu yàlla gërëm ñeexal ñu gis nga guerre bi waroon am Afrique xam nga dafa waroon am te kenn mënu ko woon tere am te bu amoon day doon musiba bu rëy ci Afrique waaye jaamu yàlla yu yàlla may xam-xam ak teraanga ak xam-xam yu la ñoo taxaw di ñaan yàlla di sàkk ay sarax ba guerre bi mujjee fomm kon ñaan yàlla lu am solo la lu am njëriñ la te ñu ñi xam nañ si dara. mu ngoog tey ñi nga xamante ne nag ñu ngi dalaloon ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Abdoulaye Cissé fekk si ko woon fii nga xamante ne moom gëj naa génn torop torop torop gars yi namoon ko lool lool lool waaye defe naa ni waxtaan bi nga xamante ne jot na ko fee def am na solo loolu képp koo xamante ne namoon nga ko rek defe naa ni tey jii nii sa xol sedd na. Cheikh yi xam naa ne nag li ñu cërale woon ci waxtu dafa xaw a kii te li olof di faral di wax rek li duuf ci nag li lépp daa xajul ci cin li xam naa dañ ko fi yamala rek beneen yoon bu ñu ñëwee incha allah nga gën a yaatal te xam naa ni waroo di gëj a génn ndax gaa yi tamit moon nañ la loolu xanaa rek ma la nga tàggatoo ak gaa yi. waaw di tàggatoo tàggatoo bu dul tàggatoo fas yéene yéen incha allah ndam soob na yàlla ñu gisee giseewaat du yàgg dara di jéggul tamit sama sopp yi ak sama am di jàmm yi nga xamante ne nii jamono ju nekk bu yi xewee dañuy bëgg ñu génn wax parce que dañuy doyloo suñ xam-xam te dañuy bàyyi xel te dañuy déglu moo tax dañ bëgg a wax safaan moo tax dañ bëgg a wax lu nga xamante ne nii njuumte la di ñaanal yàlla lu ko dalee si kaw ba suuf si wàllu kilifa aada kilifa cosaan ak ñu nga xamante ne ñoom la yàlla def ñu yor seen mbir si si wàllu zahir si seen loxo yàlla xettale leen mi président Macky sàll ak njabootam ak opposition bi ak mboolem ku nga xamante ne topp na seen gannaaw ñoom ñëpp ñu am jàmm parce que ñoom bu ñu amee jàmm rek ñun population bu néew doole bi dinañ am jàmm ñoom nag bu ñu amul jàmm rek ñun population bu néew bi néew doole bi dañuy nekk ci fitna kon yàlla Sénégal am jàmm jàmm ju sax yàlla laata jàmm ji la yàlla dëgg sax maa ngi ñaanal yàlla tamit ñi nga xamante ne ñoo nekk si kaw di àtte muy juge yi ak procureur yi ak ñu taxaw di layal jaamu yàlla avocat yi nañ xette la ñu nekk ci prison yi parce que seen nekk waaye léegoo léegi ma recevoir yaay joo xamante ne doomam dafa nekk si prison mu joytu la condition yi ñu fay nekkee kon maa ngi wax ne état bi nañ gëstuwaat ñooñu te bu ñu leen dimbalee mooy dimbal nañ Sénégal sarax bu gën a rëy si àddina mooy fekk ku nekk si xat rawatina ku nekk si prison nga fexe ba ba mu ba loolu oyof si ma wala nga fexe ba nu mu si amee njàppandal képp ku si am loxo bu gudd maa ngi siy dox nag lu ma mën waaye nag maa ngi ñaan yàlla comme am naa occasion pour wax ko si télé wala wax ko si écran maa ngi ñaan yàlla na si ñëpp jot nañ gën a dimbali ñu nekk si prison yi te taxawu leen te xam ne prison yi xat na fees na ñu fa nekk bëri na si ñoom ñu am ay jafe-jafe rawatina ci seen wàllu wér yaram néew na sax yaay joo toogal sax te waxul la doomam dafay jàmbat méttit kon nañu leen gën a mën a taxawoo nañ leen taxawoo wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.